mbokk yi bëgg alquran maa ngi leen di nuyu lu bare bari di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk jullit la imaam xaadim Ndiaye jiite daara ji ñuy wax daaru Tanzil mu nekk fii ci Géejawaay jàkkaarloog euh, tableau Air Afrique li tax ma yëkkati sama kàddu mooy benn yëgle boo xam ne moom laay def ci ñenn ñi doon ak fedd li ak yëg ci ñeneen ñi yëgoon mooy bisu alxuraan bu ñuy amal ci CICES le 26 juin di dimanche tàmbali ci war a tàmbali ci suba li tàmbalee 9h ba 14h sababu bis boobu nag mooy donga yi jàng ci daara ji ba yàlla def ñu mokkal alquran ak ñeneen ñi nekk ci taalim bi mooy ci Eh, njàngum français mi ak njàngum xam-xam mi def seeni discours ak wayjuri gone yi ak waa daara ji cérémonie boobu moom laa leen di yëgal di sàkku teewuk ñëpp nag ñi ngi koy amale ci ndigalul suñu sëriñ cheikh Mouhamadul Bachir mu sheikh Mouhamad Fadul radiallahu anhu maa ngi jagleel bis bi itam eh, sëriñ Makhtar Bintaloo ñoom nga xam ne ku nekk xam na taxawaayam bu yaatu ci lislaam bi bu yaatu ci yoonu murit particulièrement invité d'honneur yi nag mooy kilifa yu baax yi nga xam ne ku leen tudd xel yëpp day dem ci alquran xel yëpp day dem ci liggéeyal lislaam day dem ci liggéeyal réew mi ak taxawu gu muy gu ñuy taxawu njaboot gi ki ci njëkk mooy suñu sëriñ suñu wayjur sëriñ Abdul Aziz Touré di xalifam sëriñ Hadi Touré ca Fass Touré ki ci topp di suñu sëriñ suñu xarit euh, cheikh Ahmadou Rafaayi bu cheikh Mouhamad Fadel ki ci topp di Alhaji Ibrahima Fati di kilifa diine fële ca Casamance nekk ca fi ñuy wax Kerawaan euh, moom itam ci invité d'honneur yi la bokk ki ci topp di El Hadji Modou la opérateur économique di nitu daara buñ nee nitu daara mooy buñ nee way juram eh, daaray kaamil bu njaare njaareem te ña ko doon taxaw la bokk mu jaar ci daara ji ci daara yi ba def résultat yam def ba nekk fa mu nekk El Hadji sek Seck c 3 ku ko tudd moom itam xam nga ne sa xel day dem ci mbindum alxuraan day dem ci daara day dem ci lépp ki ci topp itam di El Hadji Moustapha Ndiaye économique nga xam ne moom it Euh, ku xam concours Sénico digganteem ak suñu xarit El Hadj Abdoulaye Dia ñi ne ci biir liggéey boobu xam nañ El Hadj Moustapha lan mooy taxawaayam ci alquran lan mooy taxawaayam ci waa daara ñii loolu moo tax moo tax ñu boole leen ci liggéey bi jiital leen ci ñu nekk ay invité yoo xam ne ñu am solo lañ ci liggéey bi kon nag mbokki jullit yi ñu ngi ñaan ku ko man nga teew ci bis boobu ku ko mënut it ñi ngi ñaan nga ñaanal ñu yàlla defal ñu ci najaax ñoo ngi wax nag ci turu mboolem ñi nu seqal daara ji muy bureau parent d'élèves yi muy sëriñi daara yi jàngale muy soxnay daara yi yore liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la fi seenu njaboot nekk noo bokk liggéey bi bokk nas bi ak nocc bi kon ñoo ngi leen di woo yéen ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala